benn waxtu jot na ba toftal euh, juróom benn simili mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi ñu jégalu bu baax baax ci euh, euh, li nga xam ne moom moo di yéex door gi daañu ko tàmbalee ak li nga xam ne moom moo di diggeeg Ousmane Sonko juróomi fan ci weeru avril na mu ko diggee woon defee na ko doonu tekki na ay ndombal tànkam ci li nga xam ne nag moom moo di mairie bu Sikicoor la muy moyu itam bokk na ci lu ñu dippee cumul wu fonction tax na itam mu dekk daal di jëfee lu ni mel moom ka nekkoon maire bu Sikicoor Ziguinchor daañu dem ca Tivaouane foofee tak coowal suuf moom moo dox ci diggante askan wa fa yeewoo ak itam jiit bu bokk moomeel Bafa askan woowee la ñu xamle mu di terrain boobee ngeen di gis Demba Diop si da ko bëgg euh, joxe ñoom ñu ne du ca dal waaye Demba Diop si euh, daal nay ragg deram ba mu set ci la jotaayu xibaar di ngeen déglu li nga xam ne nag moom moo di ay kàddoom ci jotaayu xibaar yi le euh, daañu ñëw ci liggéeyu ko genn soxna soo xamante ni nag mi ngi wuyoo ci turu Awa Mbaye moom nag ci rek wàllug jaayub ndawal la yëngu mi ngi am bagam ci atum 2003 ba mu ca noppi itam dem na ci États-Unis ngir wéyal li nga xam ne moom moo di ay jàng jàngam euh, dikkaat na fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu euh, euh, Ndar Géej fu ñu naan ngaleel foofee lay jaayee li nga xam ne nag moom moo di ndawal li baat ak tontu dox na ci digganteem ak suñu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo fa teewal télévision Futur Média bu ngeen di fàttaliku benn fan ci weeru mai communiqué woo xamante ni diwaan sénégalaise daal na koy jukki mu soxal li nga xam ne moom moo di nag déclaration autorisation préalable d'importation ñu gën koo xam euh, ci DPI xam ngeen ne euh, bi mu euh, soso bëri na itam ci ay doomi aadama yoo xamante ni am nañ ci ay gis-gis yu wuute ñu ci mel ni commerçant yi ak itam transitaires yi ne lu ni mel nag du ak ngëneel waaye président bu conseil wu discipline wu commissionnaire en douane jàpp ne nag lu ni mel bëri na ci loo xamante ni nag ngëneel képp dong la ñu ci gis daañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo waxtaanee wàllu tàggat yaram nag moom moo di uh, ci arène nationale mu doon combat wu yàgg woo xamante ni uh, dégg ngeen xas-xasloo xas yi nga xam ne nag uh, moom moo ci jot am daa ñu dem foofe fekk fa suñu ndaw di Malick Thiandoum mu dikkat ak ñun ci boobule combat mbokk yi tënk yaa ngoog bu ngeen taaxee la tuuti ma dikk ñu faram fàccee jërë jëf mbokk yi ñu nuyu leen ci gën gi nuyu xibaar yi ñu door ko nañu ko junjee woon ka nekkoon jiit bu bokk moomeel uh, ca diwaan bu Sikicoor ci la jamono daal dinañ tekkee ay ndombal tànkam moom Elimaane jëruñ jile uh, di Ousmane Sonko uh, jëfe na ko na mu ko waxee woon la muy àddu wala bokk la nga xam ne moom la buggul mu di cumul yu fonction lu ni mel bokk na ci li nga xam ne nag moom moo jëmal projet yi nga xam ne itam ñu ngi ci àddu boobaak léegi keneen koo xamante ni itam daal di jëfe lu ni mel di Birame lay Diop nga xam ne itam daal nay tekki ay ndombal tànkam ginnaaw itam fa nga xam ne moom moo di ca pencum ndawi euh, réew ma bu ko defee euh, ñoom ku ci nekk liggéey bi nga xam ne nag euh, moom la ñu la dénk nga mën ko wëyal ni mu la soobee. aywa ñu dem fa nga xam ne nag moom moo di ca Sandiara budget atum deux mille vingt quatre xam ngeen ne wote ko euh, ba tey euh, ñeen ci ay doomi aadama yoo xamante ni nag ñu ngi liggéeyee ca mairie ba euh, juróomi at wala boog ñeenti at mi ngi nii jotuñu li nga xam ne nag moom moo di seeni i ay salaire tax na itam ñu joxoñ baaraamu tuuma ki nga xam ne moom moo di Serigne Gueye Diop mi ñu bëgg mu daal di rek tekki ay ndombal tànkam ñu teewlu kenn ci ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéeyee foofee àdduna jëmale ci micro Ndeye Mati Dian suñu maire de woote woon na ndogu ci koor gi ne démissionné na waaye loolu wax la woon wax ak jëf ñaar lañu wax de di lenn jëf di leneen ca jëfin ba nag amul benn bataaxal bu mu bind ne day démissionné. Euh, ñun conseil yi amoon waroon nañ ñoo présenter budget kenn présenté nu budget ba 31 mars kenn voté wul budget euh, commune Sandiara. loolu aussi nekk loo xam ne aussi lu métti la pour commune bi. nekk loo xam ne aussi lu métti la pour employé yi nga xam ne toog nañ ñeenti weer yoo xam ne maire fayu leen salaire. étudiants yi nga xam ne ñu ngi jàng ci yeneen université yi nekk ci Sénégal te mairie bi da leen dañ jox 12 millions te boobu ba léegi kenn joxu leen dërëm ñu ngi leen di génne ci seen i logement loolu aussi lu méttee méttee méttee la donc loolu tax ñuy woo le président Bassirou Diomaye Diakhar fay comme mesure yooyu nga xam ne président sonk jëloon na ko pour que ministre boo toogee ab weer da nga war a démissionner looloo tax nag ñun ñuy fàttali pour que moom mu jël ay responsabilités ñu ko waxoon aussi jël ay respons seen i responsabilités. président de la république am na fi suuf suuf bu mu fi am nag 4 hectares 300 la ay mbokkam nag ñoo ko jox suuf bu ñu ko joxee suuf aussi lu mu lu mu ci waroon a def def na ko muy lan muy jaar na ci conseil municipal conseil municipal votel ko. defal ko délibération mais amul benn yoon boo xam ne maire Serigne Gueye Diop jël na ca suufam soo su nga xam ne moo ñu jotaleeg moom muy 50 hectares ya jox ko ci ñeenti hectares 300 loolu amul ay weer ngi nag ñu daal di nemmeeku ñàkkum ndox fa nga xam ne nag moom moo di càmmalem Odar tax na itam askan wa fa yeewoo ñu ngi naqarlu bu baax a baax lu ni mel joxoñ nañu itam baaraam ak tuum office su forage ruraux ñu gën koo xam ci OFOR ndax jàpp nañ ne lu ji njàkk ñoom ñooy njàkk ci wàllu woowee ñu teewlu reportage bu Ndeye Mati Dieng ak Mame Ngor Wilane fii la ñuy root guddeeg bëccëg. département Malem Hodar di jànkoonteeg jafe-jafe yu tar ndax ñàkkum ndox ay diire ngi li ni mel moo waral ba SOS consommateur bi fare ci bile dëkk daal di woote ab réunion di naqarlu ba fu naqarlu yam ñàkkum respect accord yi nga xamante ni nag moo doxoon seen digg ak entreprise bii di Ofor. ci gën a doy waar mooy que conducteurs yi nga xamante ne nii dafa mel ni Flex O euh, amul taxawaay bu leer ci seen diggante ak ñoom ba ñuy mën a jël mi vraiment di di ci yokk ay ay ay ay ay ay ay taxes yu xamante ne vraiment te suñu matériel bu paane rek dañ naan panne na mais ñu nangu benn conducteur nga ñëw di jaay ndox mi loo ci di ci teg sax benn dërëm parce que dañ lay fay salaire. anam wi nga xamante ne nag moom lañu yore yile forage seen doxalin ak yokkute yile facture nekk itam li ñuy naqarlu jamono ji mooy bu ñu ñëwee di di la di la di la di la ci sa kër su ñëwee fekk kër gi ñu fermé ko. Euh, fermeture de maison xaw ma nu ñu koy waxee quarante mille francs loolu vraiment lu doy waar la mu xaw a jaaxle su fekkoon sax bu ñu ne quarante mille la mais heure boo waree ñëw fay ko dañuy xool diggante euh, fi ñu ko fermé fi ñu ko ubbee li nga finaan naan ñi fay ko ci li si des ñu delloo la ko dina doon tane mais vraiment ñëw sa kër fekkuñu la fi fekk ñu tëj ko ñu facturé la 40 mille doy na waar trop moo tax ñu ngi yuuxu warlu état bi ne ko na jël su ndox mi delloo ñu ko. li ñuy ñaan nguur gu yees gi mooy ñu wut ci ay solution daal di joxe ndigal ngir ñu mën a ubbi forage bi nga xamante ni nag moom lañ daal di gas mbajaane. waaye li ñuy ñaan état bi mooy forage bii ñu gas mbajaaneen nga xam ne ñëpp ci liñ dégg ci techniciens yi jàpp nañ ne bu doxee mala bu Malaboudaar war na ci mën a am ndox ba doy mu doy fermier bi nee na mu ngi ko doon laaj état bi amagu ci woon ndigal ñu ngi ñaan ñi jox leen ko ñu mën ko ubbi askanu département Malem Hodar mën a naan. bu ko moyulee nag daam sekk di xam ne ni dinañ def yeneen i pexe ba OFOR jóge fa ba nga xamante ni gox goxaat yu fare ci bile département daal di mën a am ndox mu sell. denc yenn ci ay meññamteef yoo xamante ni nag euh, day jóge ci li nga xam ne rek moom moo di waax yi xam ngeen ne jafe-jafe la woo xamante ni ñu yëngu ci wàllu napp boobaak léegi euh, ñu ngi koy jànkonteel waaye jàppale ni association nationale yu mareyeur euh, fii ci réew bu Sénégal gis nañ ñenn ci ñoo xamante ni tàllal nañu leen loxo ngir ñu amee ay chambre froide solaire waaye lu ni mel du day ndax itam faw gouvernement bu Sénégal daal di sóob loxoom ci wàllu wi Aminata Goudiaby Abdou Karim Bey reportage débarcadère bu Foundiougne daanaka saa yoo fa demee dangay fekk mu xumbu ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay fruits de mer yi ak itam mareyeur yi ku ci nekk rek say fem ngay def ngir rek mën a am client. waaw déjà liggéey. fii nag ay quantité yu am solo ci jën ak itam crevette lañ fi wàcce bés bu nekk waaye nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di nappkat yi ak itam jaaykatu crevette bu tooy bi léeg-léeg dañuy mujj sax di wanteer seeni produits ndaxte fuñ ko denc lañ dul am maanaam conservation bi mooy am problème. de chambre froide. nappkat yi amuñu glace amuñu chambre froide noonu la ñuy ñëwee seen i jën ak i seen i crevettes duñu xam li leen nuñ koy def ndax amuñu ñu ko denc. afin de pouvoir les écouler. ay chambre froide nag yoo xam ne day dox dafa manqué ci site de pêche yu bëri bureau national bu association des mareyeurs du Sénégal nag ne ñoom gis nañu ay partenaires yoo xam ni mën nañu leen jàppale ñu am ay chambre froide yoo xam ni solaire moo koy doxal waaye nag ngir ñu jot ci faaw nguur yi dugal ci loxom que tey da ngay am la. que boo xoolee ay chambre froide yu bari tey tëj nañu parce que courant bi mooy seer ñu amoon ay partenaires yoo xam ne ñëw nañ fi depuis 2022 indi fi ay conteneurs yoo xam ne solaire la ñu def ko fi am na benn bu nekk Mbour am na benn bu nekk Fass Boye yooyu nag seet nañ ko ba xam ne baax na mu des nag naka la def ba acteur pes yi ci jot kon tey dafa jot ñu ñëpp ñu takku état bi jàpp ñu association nationale des mareyeurs du Sénégal nag nag day sensibiliser ay mbokk mareyeuram ngir rek nu ñu mën a def ba jot ci chambre froide yooyu nga xam ni énergie solaire moo koy doxal. tournée bi mën naa ne ñu ngi ko commencé Kayar jaar Mboro euh, def Lompul def Saint-Louis def Kébémer def Touba def Diourbel def euh, Kaffrine def Tambacounda Koungheul Kaffrine vraiment def Fatick ak Kaolack ñëw fii tey ci Fatick. léegi nag ñu defoon tournée pour xool dëkk bu nekk ñaata nga soxla ci conteneur yi expliqué dem conteneur ni muy demee parce que conteneur bi garante bi vingt ans la. te bu ñu la ko joxee tey bu état dugalee eh, li muy jàppale acteur bi léegi amul yow benn dërëm boo joxe dañ la koy tegal ngay liggéey diverse ki fi nekkoon nag jëwriñ ji yoroon wàllu napp gi jotoon nañ koo xamal projet bu ni mel ñoom nag ñuy sàkku ci nguur gu bees gi ñu jàppale leen ba ñu mën a jot ci chambre froide solaire yooyu lay aywa ñu waxtaanee lu soxal wàllug euh, jukkib gaz bi fii ci réew bu Sénégal ña yeewoo ca Ndar Géej euh, ñoom nag la ñuy sàkku mu di nag euh, aw leeral ñay saytu itam bël ba ca Ndar la ñu bëgg bokk na ci rek ñu sóob yenn ci ay ndaw ya fa nekk ci boobule activité ñu teewlu ki nga xam ne nag moom di Mouhamadou Moustapha Wade moom mooy président bu mouvement pour la défense des intérêts de la langue de Barbarie Ousseynou Diop moo taataan ay kàddoom. gaz bi fii ci Langue de Barbarie mu nekk loo xamante ni lu am solo la pour ñun mais lu ñu bëggoon mooy entreprise yi nga xam ni ñoom ñooy gérer tout ce qui exploitation ak exploration ñu mën a impliquer comme ni ko loi bi waxee jeunes yi nga xam ni ñoom ñoo dëkk fii ci Guet Ndar soit ci la Langue de Barbarie parce que loolu la législation bi wax loolu la démarche RSE aussi wax parce que mënuñu comprendre depuis ba ñuy wax exploitation pétrole et gaz que la communauté de la langue de barbarie est toujours laissée en rade dañ leen a bàyyi beddi leen teg leen fale info loolu moo tax ñuy interpeller les autorités en l'occurrence le président de la République monsieur Diomaye fay mu jël en compte cette considération xam ni dafa war a wax ak avec les vrais acteurs comme ni mu ko xalaatee def ci wàllu mbay mi génn ci courtier yi ci nekkoon yëpp ñu ñaan ko itamit mu def loolu ci wàllu exploitation pétrole bi ak gaz bi mu génn si képp kuy courtier wax ak avec les vrais acteurs su ko defee xale yi nekk fii ci Langue de Barbarie kenn dootul jël gaal di dem Espagne wala di dem Italie. mbokk yi maa ngeen ko doon junj bi ñu door yi lay jotaayu xibaar ca Tiwaawan coowal suuf soo xamante nii itam askan wa eh, nee nañ du ca dal benn yoon ndax itam ki nga xam ne moom moo di eh, maire ba moom moo bëgg jublu eh, ci dogat dogatee benn terrain boo xamante ni nag ma nga foofee ña fa yeewoo itam ne faw rek gouvernement bu Sénégal indi ci ay leeral laata bay di way mbuus Ousseynou Diop wala bokk Cheikh Anta ak Selatir ca diwaan bu Ndar gi ay ndaw yu bokk ci kuréel gi ñuy wax aar sunu Tivaouane dëkk fii ci Kawsara nekk ci Tivaouane dikkoon fii ci seen terrain football bi taxaw fii di ñaxtu nee nañ terrain bi de la Demba Diop si bëgg jël morcelé ko ngir jox ko ay borom doole. parce que fii ancien fora la. bi mu nekkee ancien fora ñu dem ba ci jëmmi jamono. ñu def fi maison de la jeunesse bii. naam sax maison de la jeunesse bi neexuñu. mais ñu bàyyi xam ne askan bi yëpp ñoo ko moom. ñu dem ba ci biir li des ci maison de la jeunesse bi. mu nga xamante ne jeunes yi koñ bi. ndaw ñi ñëpp ci la ñuy tàggat seen yaram. ñu gis ni le maire Demba Diop si dafa pare pour dagg ko ay terrain. pour jox ko jaay ko. combat boobu lan pare tey pour mëne ko. jot sunu terrain. loolee tax nag nee nañ mbir mi de fu ne dinañ ko fa jébaane ba ñu sax dem ba ci yoon ndaxte lii ñu leen nar a xañ waa Tiwaawoon kii yëpp ko bokk. te pare nan pour dem ak moom fa mbax na doone benn ngir mu bàyyi ñu ak lii. parce que fii yàgg na fi ci sunuy maam am na ci loo moo jiitu suñu juddu. léegi nag noo am terrain bi bu nu dee conférence fii lañ koy defee. Mhm. Seydi Aji Ma njaboot Seydi Aji Malik gépp ñëw taxawunu suñu demee nag ba suñuy doom amuñu fu ñu fooyee ñu jaay fii jàkka ji dootul am yoon wu fa nit demee. jigéen ñeeg mag ñi dëkk fii ci ci Kawsara nee na xeex bi duñu ci dellu ginnaaw ba tax na ci fan yi di ñëw daañu génnaat ngir amal yeneen i jataay ngir ñëpp mën leen a dégg. Cheikh Anta Diop ak Seylatir ca Tiwaawan ak lu ko wër moom Demba Diop si daal dina indi ay leeral ragg na deram ba mu set nee na nag loolee askan wa foog demeewul noonu lam ca bëgg leneen ci boobule terrain bokk na ci daal di taxawal aw terrain bu xamante ni daañ fa mën di baskete ñu teewlu Demba Diop si ba tey ci micro Cheikh ndax nit ki buñ la sosalee normalement war nga mën a am droit de réponse ngi sant yàlla bu baax parce que terrain boobu mooy fi nga xam ne fa la maison de la jeunesse bi nekk ci ginnaaw maison de la jeunesse la ce qui est prévu jusqu'à la l'heure où je vous parle c'est un terrain de football avec un terrain de basket c'est ce qui est prévu là-bas il y a jamais eu de lotissement amul lotissement bu jaar euh, conseil amul leneen maintenant il y a une partie bu nekk au fond bi nga xam ne fii la fa la kër yi nekk il y a quatre parcelles qui sont sur ces cinq parcelles on avait fait une annonce en disant ici képp ku am problème ci suuf na ñëw indi ñu régulariser la loolu la ñu defoon y a une certaine personne benn nit moo fi ñëw indi quatre anciens attributions yi nga xam ni moom lañ ko joxoon depuis le temps de Diagne Sy bi mu ñëwee joxe ko ñu teg ko sur place bi ñu ñëwee ñu xool ko ñu ne kat nañ ko jëlaat delloo ko delloo ko parce que bi ñu vérifié ba pare ñu ne kat na ngeen ko delloowaat terrain ñu delloo ko parcelles yi. avant-hier ça fait trois jours conseil bi euh, am benn conseil municipal bu dugal papier bi moo ko jox ko en disant que dama def lotissement ma ne non defuma lotissement dama régulariser li nga xamee ni que moom waa ji moo ko indi muy Fall muy Adama Naar donc quatre parcelles yooyu lañ fa joxe. espace bu toll noonu. est-ce que quatre parcelles mooy lotissement. régularisation boobu ñu def foofu li tax ñu def ko aussi on l'a fait sur la base de documents. clair net et précis amul lotissement foofu musta am lotissement donc bu nit ñi créer loo xam ne ni du dëkk nit ku booy wax la waxal ngir yàlla rek quatre parcelles yi nga xam ni moom lañ fa doon régulariser depuis jaaj si mbeng la woon euh, ñu jógee ca Tivaouane dellu si ci Ndakaaru euh, ca Tivaouane Pël euh, fu ñu naan Soka Bek foofe askan wa ñoo ngay addu salte waa ngi fay jaba jonge ñàkkum kaaraange woo xamante ni sonal na leen ñàkkum li nga xam ne moom moo di ay làmp yu mën a leeral foofee bu ko ba defee ñu mën a moyu lu bëri école élémentaire ba fa mur de collecture woo xamante ni nag nemmeeku ko fa tax itam askan waa ñu ngay fësal seen ak mer Aminata Ba ak itam Ousmane Baldé reportage. ay mbalit daal di fës fu nekk ci Sokabek nekk ci commune bu Tivaouane Peulh nekk sax njaaxare askan wi ñii nag dina xarlu ñàkkub kaaraange gi ak ay jumtuwaay ci seen gox bi problème mu d'insalubrité mbalit mi lañ ñuy sottil quartier environnant yi nekk ci kaw ñoom ñooy ñëw jël seen ay mbalit dekk jox ko charretier yi ñu ñëw ñu sottil ñu ko problème mu jàngoro yi suñu doom yi mënuñu génn mënuñu jouer ñu dellu si waat encore problème insécurité bu làmp amul insécurité dafay nekk ci mbedd yi doo mën a génn doo mën def dara. école élémentaire bi nga xamante ni ñu ngi ko daal di tabax ci dugg quartier bi moom itam mbalit mi bàyyi ko établissement bi nga xamante ne nag ay élèves yu bëri lay daal di jot ba fii amul clôture. Euh, ñu ngi am euh, cinq classes euh, physique et ak benn abri provisoire suñu problème premier problème bi fii moom mooy clôture de mur sincèrement parler parce que école bu amul clôture saret euh, yi oto yi nit ñi à chaque moment dañuy ñëw dugg école bi euh, duñu perturber loolu. ñu dëkkee ci Sokabek di sàkku nag ci autorité yi rawatina ci seen maire di Momar Soxna Diop mu daal di investir ci seen zone bi. dëkk boo xam ne boo ñëwee ñëpp oto mbali du romb fii mu mel ni maire amu fi daal. dagg dëkk bi te amul ndox fu mu jàll. ah euh, am dara amu fi man loolu musuma ko gis. maire en question et je l'ai interpellé depuis parce que moom vraiment aussi comme ñun ak moom ñoo dëkk bokk dëkk Tivaouane Peulh warul sax di xaar donc war nañu mën a jàppale vraiment. ab journée de reboisement la ñu daal di initier ci Sokabek résidents yi nag daal di bëgg gën a taaxal dëkk bi ngir gën a ñoŋal cadre de vie bi. Ah, fu soriwul ah, soka bek ñu wutali ca diwaan bu yëmbal foofee jàppaleen ne ah, daal nañuy dalu stade Pathé Waré Diop bu yëmbal lu ni mel itam xam ngeen ne taax woowee ci atum 2019 la ñu ko taxawaloon ba suñu jonn yàlla tey mu doon aw mbégte ci askan wu nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo tax na itam maire wile di Modou Bara Gaye di kat ci bu baax a baax ñu teewlu ay kàddoom je tenais à ce que ñu def li nga xamante ni mooy inauguration bi la réception définitive la remise de clés et l'exploitation du terrain pour permettre aux jeunes de yembul Sud ñu mën a commencer li nga xamante ni mooy def seeni tàggat yaram ci biir stade boobu stade bi nag li ci am solo rek waxoon naa ko bërki démb euh, bu ma ñëwoon foofu ñaari mbir rek mu fa doon indi mooy wàllu remerciement ndax ku ne xam na conseil municipal bi ba ma leen woowee am na ñeenti at pour ñu délibérer ma cent cinquante millions la ñu waxoon lañuy def ci terrain bi et ku ne xam na ni yow mi nekk si biir terrain bi boo dee xool lafa nekk xam nga ni loolu wax fa dëgg yàlla cent cinquante millions bañ koy def conseil municipal boobu jàppoon naa ni dafa juumoon lépp loo xamante ni waroon naa ko mën a def moo xam jëli ci biti indi ci biir pour que ñoom ñu mën a am contentement il fallait le faire donc loolu moo tax ci li nga xamante ni mooy sunu indemnité de député nga xamante ni askan wee ko moom ci la ñu contracté benn près de 42 millions jëndal sunu bopp gazon synthétique boo xamante ni alors mooy dernière génération homologué par la FIFA nga xamante ni gazon synthétique Zebra la 5 euh, virgule 5 millimètres yàlla dogal aussi bu ñu jëndoon gazon boobu te amuñu lu ko indi du du du mbir yi du sotti ci la sunu mag Demba bu PDG wu EDK yéen ñëpp ngeen xam ko mu nekk doomu yëmbal fayal ñu 9 millions gazon bi mën a yegg si mën a yegg si Sénégal et bi gazon bi yeggsee aussi su may xarit su may mag nekk ci administration centrale bi aussi notamment je peux lancien ministre des finances Moustapha Ba nga xam ne dañoo relation depuis ma nekkee ministre de la République ak l' actuel ministre des finances Cheikh Diba nga xam ne dañu xamante depuis mu nekkoon directeur de la programmation budgétaire le directeur de duwaat ñoom ñëpp jàpp ci fayal ma 22 millions may ñu ñu exonération dañoo làmb seen poos fayal ñu loo xamante ni mooy 22 millions muy taxe douanière yi pour que euh, conteneurs yi mën a génn. aywa ñu ñëw ci gëstu bés bi maa ngi leen doon wax ne ci njëlbeel daañu leen xam lekk genn soxna euh, soo xamante ni nag jàmbaar la ci li ñuy yëngu mu yëngu ci jaay ndawal moom moomee nag aw mbay lay wuyoo mi ngi am bagam ci atum 2003 ba mu ci noppee itam euh, dem na ci réew bu ñu naan États-Unis wéyal li nga xam ne nag moom moo di aw njàngam delluwaat fii ci réew bu Sénégal fu ñu naan ngaleel euh, ca diwaan bu Ndar Géej foofee lay daanee dooleem suñu ndaw Ousseynou Diop Habib ak moom seetaan. mbaay Mbaye ma ngay sol ay gawam ngir nag tàmbali li nga xamante ni mooy liggéeyam moom bu boucher la lii nag lu tax mu nekk ko daanu ko hasard la muy desiwaat ci li ko waral. liggéey bi li ma si dugal mooy dama nekkoon fii Saint-Louis donc dama doon xaw am difficulté pour am qualité yàpp bi ma bëgg si la am inspiration boobu ne pourquoi pas. di jaay ndawal mën jaayaale sama bopp. Awa Mbaye nag jàng na njàng mu xaw a sore. ginaaw baccalauréat bi nga xamante ne am na ko ci atum 2003 dafa dem États-Unis ngir wéyal njàngam tey jëlee liggéey bu mu ne jàpp na ni lu mu bëgg la. waa jàng naa maa ngi amee sama bac euh, Dakar Saint-Michel bac G après laa dem Amérique foofu laa def samay études en business management euh, liggéey fa soogay ñibbisiwaat en 2020. léegi nag. léegi maa ngi fii. di jaay moom Awa Mbaye nag bu cher la liggéey bi nga xamante ni da koy def da koy boole ak liggéeyu kër gi mu gis ni nag lu metti la waaye nag daal na koy gëm. waa yombul parce que boo waree boole xale yi ñu war a yeew suba teel dem ecole nga war a enchaîner liggéey bi ñu war a wàcc tamit exercice et tout ça boo ko boolee moom ay journée yu gudd gudd laay am. Awa Mbaye gëm ni liggéey bi nga xamante ni tey jii nekk na ci doon na li mu bëgg ci ngaleel gi ko fekk. ñi mu dëkkaaleel ñoo doon ay client mu jàpp ni liggéey bi mu tàmbali ay weer a ngi dina ci gën a bay waaram jaajëf euh, Awa Ousseynou ñu wax itam ci euh, leneen lu soxal euh, déclaration préalable d'importation xam ngeen ne ñu gën koo xam ci DPI yi ginnaaw itam aw bataaxal boo xamante ni nag douane sénégalaise daal na koy fësal lu ni mel itam jur na ak coow lu ci mel ni ñi nga xam ne ñoom ñoo di commerçant yi ak itam transitaires yi gis ne lu ni mel yellul benn yoon ci yooyu la jamono itam président bu conseil wu discipline wu commissionnaire en douane jàpp na nag DPI bi nag ngëneel képp dong la eh, ci li nga xam ne nag eh, moom moo di wàllug eh, douane bi ñu dikkaat ci lu ni mel ànd ci ak Habib Faye senik mer des nañ koy gis ci senik xar kanam lu ko wundu moo di gannaaw bataaxal bu direction générale bu douane bu Sénégal bi génne jëm ci lu ñu duppee DPI di déclaration préalable d'importation ab formulaire la boo xamante ni te ibbil nañ ko képp kuy importateur bu fas yéene indi marchandise ci dëkk bi bu njëkkoon nag DPI yi boobee daan nañ ko jëfee ci marchandise yi nga xamante nit njëg la tolloon na ci benn million tey xaajug million la lii de doon loo xam ne ëllëg na lool xeluk ni yëngu ci secteur informel bi ñoom transitaire yi wax li ndax boo daan defar DPI si un million si valeur fob bi ñu ne tey valeur fab bi cinq cent mille la defar DPI donc nombre de DPI bi ñu établi dafay gën a yokk te bu gënee yokk aussi dafay gën a cheral njëkk yi ndax ñun loolu lañ wax ni utilité bi lañ gisul li ni mel lañu dégg tamit ci ñoom commerçant yi ñoom ñi ne bile yi doonut loo xamante ni lu dul lu yokk seeni problème mi ngi mel ne ab liir bu juddu nga jël saakub ceeb boo ko fekkee mu tëdd boo ko tegee day daal di faatu mooy bon gim bon noonu la la mën a rayee ni muy rayee liir bi noonu la euh, DPI rayee nar a rayee secteur informel. lépp lu ñuy décider muy jëm ci jaaykat bi muy jëm ci commerçant yi muy jëm ci secteur privé bi ñi nga xamante ni moom mooy directeur de douane bu bees bi war na am possibilité mën a rencontrer ñooñu. bileeg ndogal faaw rek moom ay jeexi tal ci consommateur bi ci xalaatu transporteur yi. ci prix de revient forcément dafay am répercussion ci consommateur bi. donc aussi tamit ñu wax ñu comme ñoom nee nañu c'est-à-dire GIE Orbus boobu noonu état bi moo ko moom nañ ñu wax kañ la état di détenir ay actions ci ay GIE cest dire ñun lu ñu bëgg a xam moom mooy Orbus boobu noonu cest dire ñan ñoo ko moom milliards yi nga xamante ni moom moo ciy dem fan lañ koy verser après pour lan la. DPI lu baax la te am na avantage ci ñi ñu duppee commissionnaire en lii dafay gën a mën a tax ñu artu gën a mën a saytu ci wàllum duwaan bu ñu sukkandikoo ci président bu yor conseil discipline des commissionnaires bu douane. pays avantage la pour commissionnaire en douane bi nga xam ne bi moom dafa am devoir de conseil moom moo war wax importateur sénégalkat lii moo fi am nii lay doxee noonu lay doxee loolu lu autorité gis ne suñu koy yaatalee képp kuy importer rek dugg si ñoom dinañ la mën a jàppale parce que depuis prévisibilité moo si am loolu ñu ngi koy waasee mooy fagaru moo si ne te day anticiper si contrôle douanier bi nga am. xalaat gi doonut loo xam ne ñoom acteurs yi fas yéene nañu ko dégg ñoom la ñu bëgg mooy ñu respecter bileeg bare mu importation bi nga xamante ne am na ba noppi. et puis ce qui est la que que que la Donc, on peut, ne peut plus déclarer à base de valeur forfaitaire, comme on avait, comme on avait dit. Parce qu'on on, on, sait que, par exemple, la douane nous exige à faire, euh, à, déclarer selon des barèmes. Mais si la DPI vient, euh, tous les barèmes vont disparaître. dañ continuer di liggéey ak barème yi parce que douane mënul mënul euh, teg barème ñu siy liggéey mu xëy na nañ dindi barème yi nañ defar ay DPI yi waaye douane ne ñoom acteurs yi wax nañ ci ak ñoom ba noppi ñoom ñi ne loole amut te li ñu bëgg moo di nañ leen ca dugal. dégg nañ nag ci biir communiqué bi ñu ne waxtaan nañ ci ak secteurs yi mu concerné ñëpp mais au niveau de assise ñun ñëw na fi benn yoon mais demat bi la doon waxtaanee ak ñun. lu ñuy laaj loo xam ne daf ñuy concerné parce que tamit ay mag duñ dem décider ci suñu place ñun ñu teg ñu loo xamante ne waruñu ko tegoo jafe-jafe yi am aussi ñoom xamuñu ko. benn fan ci weeruk mai lañu door. bileeg ndogal ñoom commerçant yi ne amul benn marchandise goo xamante nit déclaré nañu ko bu ñu sukkandikoo ci ki topp ci njiitu assis de association bi ëmb jaaykat yi ak industriel yu Sénégal yi tey kenn déclaré wul ñi demoon lépp bu la neexee ma nga dem sur le terrain wala nga dem port nga defal vérification sa bopp secteur informel bi dañ ko war a jàppale secteur informel bi kat li muy généré ci fonds waa secteur formel bi généré wuñ ko li waa secteur formel bi généré ko donc boo xam ne waruñu koo rey ci defar des pays. président Cheikh Lumpuy moom am yaakaar ne ñii di ay déclarants en dinañ habitué wu ci ndogal li direction générale bi jël. jël sa ordinateur am si yi kooku man je pense que avantage bu ñu mën a maintenir tey jii suñu waxoon ne bu leen defti yi Euh, te ngeen di dédouane ñëpp dañuy bàyyi liggéey bi parce que kenn du mën dem. bileeg DP yi nag amul benn taxe goo xamante nit dolli nañu ko ci amul frais boo xamante nit ëpp na ci li ñeel opération de dédouanement yi bu ñu sukkandikoo ci direction générale bu douane waaye dafay gën a mën a dëgëral ndogal ya nga xamante nit jël nañ ko. te it amut lenn loo xamante nit dana nësaxal njëkk la ñuy jëndee marchandise yi amul it benn yoon lu mu mën a gàllankoor ki di consommateur bi. jaajëf abi Faye ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko leneen lu ma leen doon junju waxoon naa leen ne daañu dem ci arène nationale xam ngeen ne ni ki tey moom moo di ah, combat bi nar a dox ah, ci diggante ah, Sa ak itam ki nga xam ne moom moo di Eumeu seen borom taay Shinga ñu dem fa nga xam ne moom moo di ci national fekk fa suñu ndaw Malick Thiandoum lay wuyo Malick maa ngi lay nuyu bu baax a baax. lañ mën a jàpp jamono yi ci li nga xam ne euh, moom moo di euh, ambiance bi ndax mën a guñe euh, nemmeeku ñaari mbër yooyee laale ci jamono yi. waaw xam nga tey affiche bu mag moom moo am ci diggante Eumeu Sène ak Sa mu nekk choc de génération parce que Eumeu Sène ba muy takk ngemb booba Sa Thiès xalaatagul a dugg ci làmb. Mhm. mais garab ci kaw lay fekkante. Mhm. Sa def performance yu nga xam ne performance yu am solo la. ba egg tey dans la cour des grands war a daje ak Eumeu Sène. Hmm. Eumeu Sène nag nekk ndaanaan ndax combat yu mag yu bëri moo ko bëre li ñuy tuddee combat jànq di combat choc yu bëri moo ko bëre moom mi nga xam ne moom lay bëreel di Sa Thiès euh, Eumeu Sène daan na magam ñaari yoon Eumeu Sène daan na Lac de Guiers Eumeu Sène daan na Gris Bordeaux Eumeu Sène nekk ndaanaan bu nga xamante ni bërki démb bi muy dajeeg Tapha Tine donte defet na ca jëlee dafa mel ni ki ñuy wax dafa daanu ba pare me ni moo daan waaye tey ki muy dajeel day ndaw. barki démb dañoo gis choc de génération franc daal di yóbbu bombardier pratiquement à la retraite ñu ne ndax tey loolu day amaat ñu ne ah loolu day point d' interrogation lañ ciy def donte sport de combat dafay favoriser xale encore une fois mais combat la bu nga xam ne lu nekk mën na ci am. Eumeu Sène nee na xale bi defal na nga daan def ñëwal nga song ma boo ma songee di nga xam ne maa mën a bëre xale bi nee na ko man sama bopp bëree lu ma Balla Gaye bëree lu ma Lac de bëreelu ma keneen sama bopp laay bëreel man maa jël combat bi parce que dafa am fu ma bëgg a dem ci làmb loolu mooy enjeu wu combat bi yëpp tey nag boo xoolee fii ci arène nationale l'organisation est extraordinaire parce que dafa am leneen lu ci xew muy cerise sur le gâteau parce que Balla Gaye dafa jógee INSEPS ki nga xam ne tey moom mooy Tapha Tine jóge ci loxoy Eric Favre fële ca Côte d'Ivoire ñoom ñaar ñu war a def seen jàkkaarloo tey jii loolu mooy programme bi en tout cas lamb la ju nga xam ne les forces de défense et de sécurité fayewul ko le groupement mobile d'intervention est en place les forces de défense et de sécurité ont cerné ar artères yi nga xam ne moo jëm ci arène bi yëpp kon mel na ni fi mu nekk nii wure wa dem na kën waxi mag dem na ndeñ taali bàgg war na mbaam lu waaye doon jaay léegi mu lamb bu ca kanamee faw jël la am Malick ñu di la jaajëfal bu baax a baax jaajëf merci beaucoup merci beaucoup ñu jaajëfal ko bu baax a baax euh, moom euh, Malick Thiandoum ci la jamono ma nga fa nga xam ne euh, moom moo di ca arène nationale combat wu ni mel itam daan ci dikkaat nu mu gën a yaatoo fii ci télévision Futur Média ñun itam ñu jaare fii daal di yëkkati jotaay dig daje ngoon incha allah 19h30 lay doon dinaa fi teewaat jukki leen xibaar yi ci kàllaamay ko ci 20h itam di ngeen ak rédaction bi lu mooy loolee ñu leen di ñaanal jàmm te di leen wax ngeen wëy ak programme bu télévision Futur Média jaa mbokk yi ñu yendu jàmm.